asalaamaaleykum di leen nuyu ret foo waay nekk di leen jàmm mbokk yi nuñ koy ànd ak yéen rek seen revue de l'actualité chaque jour ñu ne yéen la ñu ñoo koy ànd ak bëgg loolu nag euh, gars koy yóbbee ak la nga ni rek moo xew poste ndax poste nag ku ne xam na ni euh, kërub liggéeykaay bu yàgg la ci biir Sénégal waaye nag waaye ñun nag am na ñenn Sénégalais dañ leen a mere lool nag lool ndax ñoom daal nee nañ leen métti ci poste moo ñii ci état lañ doon liggéey ñii di taaba taaba am na ay maçon am na ay jaykatu caaf am na ñoo xam te ni dañ naan seen nett ñii bu ne bi neexee ñu jël denc dugal seen compte ci postu waaye daal xaalis boobee nag lañ mënta gis fenn mu nekk lu doy waar ndax ñoom nag léegi jamono bi dem nañ ci poste laaj leen seen xaalis post ne leen kat ñun mënuñu leen fay mu nekk nag mbir moo xamante ni jamono bi daal jaxasoo na carte yi diggante ñanga xamante ni ñoo dénkaane xaalis ak waa poste ñoom nag ña nga xamante ni euh, ñoom la ñu yoreel jamono bi nee nañ leen lañ nar a def mooy poste bi leen waa poste mu nekk mbir mu doy waar ñu déglu mbir moomu. waaw ñun en fait ay liggéeykat la ñu fi gën a bëri nag ay agent de l'état la ñoo xam ne dañoo jëloon seen salaire ñu domicilier ko poste mu fay jaar ñu koy fayeeku naa ñu dem ba ci benn temps boo xam ne poste mënatut woon fay salaire yi donc ñu gën a bëri ñu jóge foofu noonu ñu dem mais bañ fa jógee dafa am xaalis boo xam ne li ñuy wax reliquat dafa des foofu noonu souvent mu nekk nag parfois xaalis bu bëri. alors am ci leneen loo xam ne tam aussi euh, ñoo xam ne ay épargnants lañ mooy li ñuy wax caisse nationale d'épargne am na ci sax ay sénégalais yoo xam ne ci diaspora bi lañ nekk. ñeneen ñi si gën a si aussi ci secteur informel bi lañ nekk. dañ doon jël seen xaalis di ko dénkaane foofu. pour bu demee ba am nu mu toll ñu mën ci tabax seen ñenn ñi ubbi seen entreprise. ñenn ñi jël sax ba fay ci seen njàng doom mais loolu yëpp tey dafa taggatémbe ndaxte poste wax dëgg yàlla mënatul nee na amatul xaalis boo xam ne moom la war a dollee ñu parce que nit nag boo ko denkee sa alal te mu doon ab banque heure boo ko soxlaa dala ko war a jox poste nag nee na moom mënatul joxe xaalis boobu noonu parce que dafa am problème donc nag moo tax ñu ngi leen di wax euh, nañ fexe ñu régler problème boobu noonu parce que tey am na ay nit ñoo xam ne euh, seeni seeni projet tabax yàqu na seen njàng doom yàqu na parce que lépp ñu ngi ko wékkoon loolu nga xam ne xaalis boobu ñu ñu ñu ngi doon dénkaane au niveau de la poste donc nag ñu ngi attirer attention en tout cas ministère yi nga xam ne mooy le ministère de tutelle mooy ministère poste ak le ministère des finances pour que ñu régler en tout cas problème bi euh, le plus rapidement possible. oh cas bi critique na daw na yaram. mais yàlla baax na xëy na nag bu ko nguur Sénégal déggee daal dina jël ay matukaay ndax ñoo xamante ni itam euh, dañuy jaay caaf ñii di taaba taaba ñii épargner pour seeni projet loolu nag jekk nañu fay leen ko ndax itam ñoo ko liggéey ñu daal ci beneen mbir gaa yi mais Ziguinchor la ñuy jubali soor nag ko ne xam na ni euh, ay weer a ngi nii bato bi dawul ndax nag ku ne xam na ni ñu bëri bëri bu ñu daan dañuy jël euh, euh, bato diggante Dakar ak Ziguinchor waaye nag bi ñu nemmee ko yéen firnde yi ba daal mbir moom dafa daal taxaw. ñeneen nag teg ca ña fay liggéey daal dina daal loolee tax na ba tey jii nii ni économie bi war a ni économie bi war a doxee foo fekkee Ziguinchor doxul noonu dara doxatul ñoom nag li ñu bëgg ren moo di ki ñu ko dénk daal bu dee mënul na delloo jox keneen nag ndax nag jot na bata daw jot na bata daw ndax itam dëkk bi yënguwaat comme bi mën a circuler ñoom waa Ziguinchor daal loolu lañ bëgg ñu déglu leen ñoom itam ñu wax li leen metti soxal c'est que ligne boobu su fekkee ma dem ba mënu ko dawal ñu jox ko ma sàmm war na mënoon waaw mais mënuñu ko jox benn nit boo xamante ne euh, léeg-léeg mu taxaw léeg mu dem léeg mu taxaw léeg mu dem alors que dafa am ñoo xamante ci loolu dañuy liggéey ñoom nag ñoom bu ñu yàqal seen liggéey bu yàqoo ñu yàqal ñu yàqal tamit ñooñu ñi nga xam ne ñoom ci ci loolu la ñu yëngu vraiment loolu lu kii la mais ñëwal fi nga xool port bi kenn nekkatu fa kenn nekkul ci port bi alors marchandise yoo xam ne dañuy jaay boutique ci ci yoon bi la jógee mais yoon bi dafa am njëg dafa am prix mais prix boobu lu ñu koy def dañ koy répercuté ci ci ci marchandise yi léegi nag boo demee jënd sondeel sondeel bu doon bu doon jaar bu doon jaar ñaar fukk ñoom ñu jaay la ko fanweer nooy def mën nga taxaw foofu di joyantu wala di di di di di soit da nga koy jënd mais léegi ñu bëri amatuñu doole boobu pour ñu mun a jënd loolu moo tax may ñaan il faut que nguur gi mu taxaw tel xoolaat mbir mi mu xam que liñ boobu su fekkente ne ko sama amul kattan boobu bu continuer activité yi na ko jox keneen parce que waaye liñ boobu moom liñ boobu moom moom ala kulli il faut ma. ko déggandoo gars yi dañuy te ca Mbour ca diwaanu Mbour. foofee nag li fa xew moo di euh, ca diwaanu ñaniñ loolu la ñu wax nee nañ dafa am benn club bu ñuy woowee club aljanna foofu hôtel la daal hôtel hôtel daal maanaam foo xam ne ni tey jii euh, dañ fay dalloo mu nekk nag bërëb boo xamante ni daan na jël lu toll ni ci junni nit ñu fay liggéey waaye ñoom nee nañu fukki at foofu daanaka daal doxatul doxatul dañ daan xëy gis ay tubaab dëkk bi naat ñuy ñëw commerce bi dox mu neex waaye daal jamono bii foofee dara doxatul neen sax loolu wala jamono bii seen jeunes yu bëri di lañ gaal di dem bu ñu sonoon nag ci nguuru Sénégal la ñuy waxal mais nag ñu bëgg moo di nguuru daal daal di ñëw defaraatal leen seen bërëb yooyee mu dox ndax nag ñoom daana gis seen bopp ndax itam activité bi daana dund xaalis bi daana circuler njaay mi daana dox lu bëree bari am ñu daan jóge bitim réew di ñëw waaye daal ñoom jamono bii gisuñu ko ñu déglu leen ñoom itam euh, li ñu bëgg daal moo di nguuru Sénégal daal ñu jàppale leen ñoom wàññi nañ ñu déglu leen hôtel yëpp boo ko boolee plus de mille lii la doon def ay milliers d'emplois moom moom perte foofu muy domaine de Nianing ak club de ak club bi ñëpp ñu fa jaar dañoo jaaxle ci nu mu taaroo nu mu rafetee koko yaa nga fa koko yoo xam ne ñooñu mag te ubbiwul gisuñu tubaab ñu jaaxle parce que tout simplement dafa tëj dañu nekk ci dëkk boo nga xamante dëkku géej la dëkk boo xamante dañuy dañ doon gis gaal di fi jóge di dem am na ay doomu Nianing yu jóge fii dem doomu Warang doomu Pointe Sarène doomu bi autorité publique yi ñu xam ne ñaari hôtel yi domaine dañu nekk club aljana taxoon na boo ko boolee ak géej gi petite côte bi yëpp dañ doon dundee fii ñaniñ amul woon chômage Pointe Sarène ñoom ñëpp amuñu woon waaye tey fu mu toll nii gis nga yàqu na ba xale yi di dem ci géej gi donc hôtel yooyu war na ubbi waat domaine de ñaniñ club aljana aljana moom xanaa war naa neex waaye dañ dimbali rek ñoom itam bu ko a sukuri ndax itam jamono bii gis nañ ni que ndaw ñu bëri bëgg nañu xëy te amuñu ko ñoom nag bu ñu kon na leen nguur jàppale mbokk yi ñu wax ci beneen biir. mbokk yi nag ku ne xam na ne Senelec yi neexul ndax nag ñu bëri ñu ngi jug di. ñaawlu facture yi ni muy yokkoo di ñaxtu bu baax a baax ni woyofal bi di gaawee jeex yooyu yëpp nag nekk loo xamante ni ñoom sénégalais yi ñu ngi koy ñaawlu bu baax a baax mu nekk lu leen naqari loolu nag moo waraloon waa Sénégal nag ne kaay leen askan wi kaay leen ñu toog waxtaan waaye nag gis nañu que nag invitation boobu seen sénégalais yi dañ ko daal di wan ginnaaw ndax bu ñu sukkandikoo te Euh, ñay utiliser yooyee ñoom daal la ñu ne moo di Senelec doyewu leen lu dul wax ji bëri li ñu bëgg daal moo di ñu soppi doxalin sinon nag dina gën a garaaw ci ñoom ñoom nag ña nga ñoom la ñu woowoon te demuñu nag wax nañ la moo tax demuñu waaye itam lan la ñuy xaar ci kër googee di Senelec ñu déglu leen. lu tax ñun ñu bañ a wuyu Senelec ndaxte Senelec mënul xaar rek ba saa yu nekk ci ay jafe-jafe rek bëgguñu wooru pour mbubbooñu ci ay yoo xamante ne tegawul fenn ñun rencontre ak ñoom parce que ñuy jot ay réclamations yu jógee ci clients yi pour que ñu mën ko traiter mais pour ñu mën a am ñoom euh, benn cadre dialogue bu sincère pour nu mën a traité kaa yi dafay jafe ñun bind nañ leen à plus à reprise pour di leen wax problème yi nga xamante moom la euh, consommateurs yi nekkee ñoom bu fekkoon ne dañuy woo pour wax ñu naka naka la ñuy mën a xalaatee ñu changer système de facturation bi nga xamante mooy problème bi mu mu projet li li fi nekk yëpp pour xool naka lañ koy proposer l'état du Sénégal pour que mu mun a nekk njëriñ si si askan bi loolu ñun mun nañ ko mënoon nañ cee ànd mais di ñu woo si si kii boo xam non seulement amul agenda bu leer lu ñu wax mu ne xaw ma euh, dañu bëgg a présenter simulateur rek de facturation ñu xam ne ñun wax dëkk yàlla mu indi problème bi présenté wu ko xaar ba problème am ñu bëgg ñu ko présenté ñun dañu gis ne loolu daal euh, amul solo si ñun taxu ñoo jug loolu loolu daal amul benn intérêt si consommateurs yi moo tax ñun suñu association ñu daal di décliner invitation boobu di xaar ci leneen loo xamante ne mu ëpp njëriñ fuuf mbokk yi nag dañuy àdd ci mburu politique nag ko ne xam na ni euh, jamono bi jeex na lool ci réew mi euh, dañuy wax rek ci kuréel koo xam te ñoom seen bopp lacoste lañ ko tuddee lacoste ndax ñoom li ñu bëgg daal moo di dooleel usman Sonko ndax ñoom nee comme que nag attekat bi joxe na dogal Ousmane Sonko dafa war a bokk àla kulyaali nag dañoo war a bàyyi seen euh, noole boobu bokk ndax nee nag noo noole noole dafa foor li ñu bëgg daal moo di ñu bàyyi Ousmane Sonko mu bokk nag li jàpp moo di am na dëkk yoo xam ne ñoo ngi ci adduna bi waaw lim lim nañ ko sax lu mel ni ay France ak États-Unis nee daal euh, dañoo jàpp dañuy sot waaw ñoom ñoom nag dañuy sotal ña bokk ci nguur gi ndax ñoom mënuñoo jàpp Ousmane Sonko di dund yenn dund yi nag ñu toog seetaan li ñu buggi daal moo di Ousmane Sonko jotat ak ak yelleefam ba mun a bokk daal ñu déglu leen ñoom. mu nekk kuréel boo xam ne yitteem mooy nan lay fexe ba Ousmane Sonko bokk ci élection présidentielle du 25 février 2024. ndaxte tey yoon nee na Ousmane Sonko dafa war a nekk électeur et éligible d'ailleurs sax musta ñàkk statut ngeen ànd ak ñun ñu génn ci mbedd yi ngeen ànd ak ñun ñu taxaw nag taxawaay bu am solo parce que jigéen ñi ne ci kaso bi ñu leen di métital ce n'est pas normal ki nga xamante ne mooy directrice su camp bii di jigéen ñu ngi koy interpellé di ko wax ne ko xajuñu ci moom xamuma nu mu tudd mee ne delloo si xelam bii def c'est indigne d'une femme damay indexé la France les États-Unis lépp lu nekk kuréel droit de l'homme ci àdduna bi mais gisuñu benn organisme international mu yëkkati kàddoom taxaw ci wax dafa mel ni mbir bi leen a arrangé mbokk yi nag weer gu yaram Ousmane Sonko bu ñu sukkandiku ci eh, jege ñaareem yii nii fa ñii daal yaramam neexul ndax nag eh, ku ne xam ne dafa dooraatul li nga xamante ni moom moo di grève de la fin bi maanaam toog xiifal ba nga lekk maanaam daal doo lekk doo naan mën nañ ko tuddee noonu waaye daal moom Ousmane Sonko daal eh, jege ñaareem bi nee na jamono bi daal weer gu yaramam soo na lool lool lool li mu bëgg daal moo di nguur gi bàyyi ko mu dellu këram si noonu nag. Euh, yuuxu dina euh, jib daal fu ñu ko fekkeewul ñu déglu leen ñoom itam euh, kii li ñu nettali kii daal jamono bii Ousmane Sonko ak wér-gu-yaramam naka la demee. may dugg fii ci salle bi maa ngi fi dugg ak xol bu diis. ak xol bu metti bu ànd ak njaqare ndax annoncé nañ ñu ni Ousmane Sonko dafa def malaise bu metti ba perdre connaissance. ba jamono jii may wax ak yéen. médecin yi ñoo ngi ko nekk ak moom ngir di ko dimbali. ngir xettali ko wolof dafay wax sax ngir dabu bakkanam yàlla tere mais foofu la ñu toll. loolu nag bu ñu ko waxee ci jamono jii ñu toll ak ci conférence ba de presse bii ñu yëkkati ngir wax ci liñ ci wax lépp ñuy wax loolu xew ngeen xam ne lu fu mu fu ngeen ko natt rek ci gravité ak dangerosité. weesu na fa kii ñuy wax muy Ousmane Sonko mooy leader de l'opposition sénégalaise may bëgg a wax président Macky ci turu leader yi fi toog yépp ci turu patriote sénégalais yi nekk ci biir réew mi ak diaspora bi mais ci turu sénégalais yépp ak démocrate yi ni président Macky Sall Ousmane Sonko intégrité physique am intégrité mentale am yaramam ak léppam mu ngi ci sa loxo yow yaay seul et unique responsable te ñu ngay wax bëgg nga dégg ni lépp lu ko dal yàlla tere ñu ngi ñaan sénégalais yépp ànd ak ñun ngir ñaanal Ousmane Sonko taw féex mu mën a jogaat waaye lii ñu wax ñu ni def nañ malaise lépp lu ci tukkee président Macky Sall ñoo ngi la koy wax ni moo di tey wala ëllëg fii ci biir réew mi wala ci bitim réew danañ la topp dina nekk haute trahison très haute trahison loolu nag moom laa bëgg sénégalais yëg ko waaye tey malaise bii mu def te ñu wax ñu ni lu grave la ba médecin yaa ngi ko wër ba mu perdre connaissance Macky Sall mii toog tey ci Sénégal mooy le seul et unique responsable mbokk yi jokko njal on jaaraama ni di waxee ci ànd bi ànd ak su nekk di leen jox di daje suba ak jàmm incha allah ci révise de l' actualité li nga xamante ne moo gën a fës bëgg ñëpp nag waa biir réew waa bitim réew waa Thiès Dakar Mbour Saint-Louis ñëpp daal nga xamante ne bu ñu rek dañuy xool la nga xamante ni moo gën a fës ci bis bi à travers Thiès Info chapeau à vous jërë jëf.